jongante njiitalu réew mi jaar na yoon bu ñu sukkandikoo ci plateforme bu jigéen ñi ñu dubbee ko ëttu jàmm moom yi nga xamante ni nag dafa jëloon juróom benn fukk saytukat ñu daal di leen tasaare ci senegal la ñoom ñee nag jàpp nañ téeméer goo jël doxalinu élection bi jaar na yoon ci juróom ñeen fukk ak juróom-ñaar la tukkee ci seen saytu moo yi lañ ñu daal mu di xam naa ne lu euh, incident bu nga xam ne wax nañ ñu ko euh, ci bureau yi bu nga xam moo di ne. moo di ne euh, dafa am ay électeurs yi nga xam ne ba ñu ñëwee bëgg a voté mënuñu ko woon a def ndaxte dañoo xool fichier électoral bi foofu dafa am moom jafe-jafe ñoom ci ñoom. jàmm ak salaam gi ñu ne nemmeeku ci élection yi nag mu mel ni nag jigéen ñi am nañ ci wàllu gu am solo ñoom nag ñuy jaajëfal ñi nga xamante ni ñoo nekk ci langue politique bi ñoom ñi yombal yëf yi. ñoo ngi félicité acteur politique rawatina nag. candidat à l'élection présidentielle ñooñ ñoom dañ leen di euh, wax euh, dañ leen di félicité bu baax a baax ci li nga xam ne jóg nañu ñoom ñëpp féliciter ba pare reconnaître ne candidat bi nga xam ne kat moom moo élu moom jaar na yoon te d'accord nañ ci loolu wane nañu respecté nañu kon la volonté kon du peuple. turu njiitum réew mi léegi ñëpp xam nañ ko. plateforme jigéen ñi nag bi nga xamante ni genn wàllu millions yi jigéen ñoom ñoo fa nekk daal di booloo ni ab say di ñaax rek njiitalu réew mi. programme am boobu noonu nañu fexe ba am parité gouvernementale kooku moom jigéen ñi dañu koy laaj te di xaar nag li euh, prise en compte jigéen ñi bu baax a baax euh, dans les politiques publiques yi nga xam ne moom la ñuy teg place.